fa xayu bi axsani minha aw ruduha seet nañ nuyoo ba nga xam ne moo gën a rafet xamuñu waaye nag xanaa ñu ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu duñu guddal dañuy feddali rek kóllëre gi nga xam ne ñoo ko fasante woon ak yéen mu jaar ci suñu sëriñ suñu mag di maam Alfa Si defe na atam mu yebal ma ma ñëw ànd kook yéen booba ba léegi nag nee na ma man dootuma demati at mu jot yaa fay wuutu donte Ousmane ma nga fa waaye ahsan baax na waaye xasana gën bien baax na waaye très bien gën moo waral suñu teewaay fii tey di leen ziyaara bu baax tey baalu xaq bu baax a baax oustaz yal na ñu yàlla may ñu fekkewaat at yu baree bari di wax ne rekk mag ña la la mag ñi nekkoon bu dul dëgg ci yàlla dara dootul dëgg ci yàlla lii yépp jotaayu mag ñi la ku ci xool mag ñi rekk gis sa bopp sa digganteek sa borom waaye gis sa bopp sa digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu ngeen ëmbal ñu yiw yiw weesuwul ngeen am jotaay bu rëy bii nga xam ne jotaay boo xam ne alquran yàlla ngi wax ne inna alxasanaati yuzhibna sayyiatihim yàlla ko dige te yàlla lu mu dige rek dana ko def waaye xam nga bu dàqati mu ne fa ulaayika yubaddilu llahu sayyiaatihim xasanaat nee na jotaay yu mel nii ngeen teew ci amatu leen bàkkaar yàlla nee na bàkkaar ya ngeen defoon bu doon junni bi ngeen duggee fii dëkklu yàlla nee na bàkkaar yooyu ëlbatin naa le ko defal leen ko yiw kon nag yàlla bu ñu yàlla nattu ñu nekk ci leneen lu dul lii te leneen lu dul lii rek caaxaan la te caaxaan baaxul nag bokk yi rawatina nag ay jullit rawatina ñoo xam ne seen lépp mag ña la te mag ñi seen lépp génnul yonent bi sallallahu alayhi wa wax nga léegi ci sa maam Cheikh Alhaaji Malick digganteem ak mag ña digganteem ak ñamu ko seqaloon ci rafetal xam nga julli mbokk yi julli lu rëy la waaye yàlla lan moo ko war a dàqal julli je pose la question yàlla lan moo ko dàqal julli ci kaw suuf laa wax nag de te wax na ko xam ngeen julli obligation la julli nag bokkul ci jaamu yàlla waaye du la wàcc mukk ba ba ngay dee ponk lislaam ñaata la du juróom la aj mag boo amul paas ndax dinañ la ci topp weeru koor boo amee ngant feebar kenn du la ko topp azaka nag bokku ci boo amul azaka kenn du la ko topp waaye julli nag du la wàcc mukk ba ba ngay dee waaye yàlla lan moo ko war a dàqal julli ci suuf waqulu linnaasi xusnan mag ñi wanul ñu inna al ibada lillahi ida aradu arada yàlla nee na am na ci sama gaay yi man yàlla ay nit lañ am ndey am baay waaye maa leen tànnal sama bopp lu ñu namm rek ma ànd ceeg ñoom waaye nee na nag ñooñu kenn du leen xam mag ñiñ fi waxtaane seen biir kenn xamu ko waaye xusnan ja lañ ñu wan te yàlla nee na xusnan nag moom a dàqal ci suuf mooy rafetal sincérité ci la bokk jokk bokk li ngeen def nii ci la bokk te pourtant julli lu rëy la waaye nee na yàlla nee na lii moo ma dàqal te mag ñi loolu yemuñ ci wax ko waaye dañ ko jëf boo toogeek ñoom rek ñu jël jëmmi yonent bi wan la ko ci seen toogaay ci jëf ku ci mel ni sa maam Abdou seen maam Abdou Aziz radiallahu anhu dama koy laaj bés dinaa koy faral di nettali wax nga ko léegi sax heure tëdd war a jot ca kër gu mag ca néegu Cheikh xaaji malik ma ne ko bàyyi man de bëggoon naa la laaj sa bàyyi tuuti ndax Cheikh xaaji Malick boo koy xool ci mbind doo ko ca gis ndax wanewul boppam benn yoon lépp yonent bi la ko jot walay sa nafoon bu leen way ala xubbin bila amalin wa taabian sunnata almuxtaari mi léppam Maodo yonent bi la waaye na Tidiane nee na mooy sama sëriñ waaye bu roy di am nag man royu ma ko de ñu ne ko boo royul cheikh koy roy mu ne maamam laay roy yonent bi ndax yonent bi la yàlla jox lu mu joxul kenn alquran yaa ayyuha rusul balligh maa unzila ilayka waaye wa in lam tafxal la ko wax fa maa balaxta risala ba soog a ñëw xam ngeen yonent bi amul benn défaut amul ndey am na ndey am na baay waaye kenn yaru ko ci ñoom yàllaa ko orienté yaral ko boppam moo tax amul benn échec xoolal yàlla ci boppam te gaay ñaa ngi tollook niveau yàlla fi mu nekk nii hmm? waaw Sénégal am na ñoo xam ne ne nañ dañuy gis yàlla gis nga catastrophe bi ne du affaire góor jigéen de am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi fii di wax ay tooxi doona yoo xam ne ñoo raw góor jigéen sax faut le dire ah daawaat toog naan gis naa yàlla c'est grave ngir rek nee na ma nangam ngir lan dunde diine ak dundal diine du ma du benn mag ñi dañ daan dundal diine waaye dundewuñ ko actuellement nag ñi fi nekk dañuy dunde diine parce que ñi nga nekkal wanoo leen yàlla lang leen wan sa bopp waa sëriñ bi nga àndal te yàlla ba muy wax nag mbokk yi borom xel yi la yàlla waxal waxul ak dof yi ku dof bokkoo ci kon boroom xel yi nañuy réfléchir di xalaat ndax lii ñu la wax ndax dëppoo naag li yàlla bëgg wala déet su may ànd ak yow dooma jiite ca jàkka ja dooma wax dara lu dëppook la yàlla bëgg lu dul sa bopp rek may nàngam may nàngam mais gis ngeen réew mi li fi ne kenn mënu ko wax te boo waxee am fuñ la féetale te mag ñi doxalewuñ noonu la mag ñi nekkoon bu dul dëgg ci yàlla dara dootul dëgg ci yàlla xanaa junuñ li nekk ci jamono bii seen maam Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh bàyyi xel mag ña mag mu nekk ci dundam moom Cheikh Al Hadj Abdoul dem na taataan ci yow ndax baayam moo ko ne woon Abdou man sa baay Maodo képp ku ma bëgg a bégal nang ma teralal mag ak lu mag mage man Maodo ku ma mënul teralal mag bàyyi maag mag mag ba ëllëg man Maodo Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ci wàllu yàlla ak la ko yàlla defal yépp xam nga. juddu sa baay di la tagg Cheikh El Hadj rek la ko yàlla defal Cheikh El malik ak dayom Cheikh El malik ak yàllaam Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Hadj Malick yàllay kese la naan ko yaa uddati fi shiddati in lam takun anta fa man yungisu nii min arrada yaa saaxibal fixlil xasan tuuba li man baata bikumu musharridan anil watan sëñ Babacar si borom barekaare ba nee na lii bi ko sama baay di wax sama rakk ji maa ko fekk kenn fekkewu ko maa bind bayit yi maa ko fesal maa ko feeñal nan ko Abdou Aziz boobu góor gi mënagul dox seen soppe bi mënagul dox bàyyam di ko tagg naan ko yaay sama ndëgër laay de waxuma kenn ku dul anta fa man waxuma kenn yow Abdou Aziz waaye ba ci kanam dinañ xam yaay kan bés bu ñu demee ba Sénégal dëgg amatu fi ñi jiitu réew mi du ñu wax dëgg Abdou Aziz yaay yëkkati sàggantu wax ak ñoom te loo wax ak ñoom yàlla dina ci ànd ak yow dem ba naan ko bu élèves yi di grève di toj di yàq Abdou Aziz woo leen boo wootee toog ak ñoom loo wax ak ñoom rek yàlla dina ci àndal bu ñu bañee sax yàlla yebal ay malaaka ñu nangul la Abdou man nag sa baay yaakaaruma kenn ku dul yow man Cheikh Al maa Malick ngay wax de nee na ko yaakaaruma kenn ku dul yow fii ci àdduna ak ëllëg ci àllaaxira moo tax góor gi nee na yàlla boo naree yóbbu mbindeef yépp safara feesalal sama jëmm man Abdul Aziz ñépp mucc dem àjjana jëf na ko duma dugg sax ci mujj dundam waaye bi ci gën a doy maam Cheikh Coro Mbàkke bi bokk ak maam Cheikh maam Ahmad Bamba daf ma daan wax ne si ñaan gi yëg naa ne yàlla nangul na ma ko te ki ma ko wax du kenn ku dul sama way jur maam Cheikh Coro Mbàkke dafa dajeeg moom jox ko loxo mu ne ko inna farixna bil ityaani abd azizi lana abdal azizi fatal fityaani fiha zamanun shiblun yakunu bi iznillahi xaaliqina dirhama ihraanihi fi sirri wal alani tawalla al baaqi ka walidihi góor gi nee na bi mu nee ka waalidihi Abdou Aziz maay sa baay Cheikh El Hadj Abdou Aziz mbég gi ma àndal naan ko ka waalidihi bi jaari asraari wal mikani lu mooy gaynde gu ndaw nag nga fi mu nekk nii parce que boobu sëñ Babacar a ngi fi mag ñaa ngi fi góor gi ndaw la woon waaye ba ci kanam abd dinañ xam yaay kan fa tabarakallahu kon mag ñaa ngi noonu kon ñun lu ñuy wutati leneen gaa yi nag léegi dañuy toj rek te mag ñi dañ daan tabax oustaz bu génnee am ku ko def toj nga fi ma départ 10 ñu ne ma toj nga fi keneen toj fële keneen toj lépp a màbb fi mu nekk nii te mag ñi dañ daan tabax ah, ah, ah. toj rek muy màbb rek te mag ñi dañ daan fekk xol mu fënax ñu am luñ ci def ba mu kii ñun nag construire ñu dañuy tabax dañuy toj rek na màbb rek lépp mi ngi màbb fi mu nekk nii xool yi di màbb jikko yi lépp yàqu na te la ko waral du kenn lu dul sa sa sa sa bànneexu bopp ak sa bëgg bëgg bopp léeg nga gis benn waay sol ko neex ñu naan dafa dëddu àdduna ma ne ko yow àddunaa la dëddu ba pare xuzu zinatakum inda kulli masjid an nazafatu min al iman mais civilisation bu koy wax l'islam la nga naan da nga gëddu àdduna yow àddunaa la dëddu dëddu ba pare zinata allahi axraja li ibaadi min riski xam nga donc maa ngi guddal mbokk yi te bëgguma dog oustaz ci waxtaanam waaye di am mbég bu baax a baax di leen wax ne nii ngeen def noonu la arab day wax ne hakada hakada wa illa fala la nii naka la ñu ne njaboot ci dundam Baye Cheikh Saalih Mbacke yal na yàlla yokk leeram dama dem Amérique dëkk bu ñuy wax Detroit Michigan bi ma demee weeru koor la ma gis tiijaan yi ak murit yi daje benn béréb bés bu jot ñooy bokk ndogu tey murit bi waxtaan ci Cheikh Al Hadji suba tiijaan bi waxtaan ci maam Cheikh Ahmad Bamba ba koor gi jeex def naa fa deux semaines yoo xam ne noonu lañ doon dunde bi ma ñëwee ci sama baay Saaliwu seet si ko ñu waxtaan bay génn ma ne ko bàyyi daal xale yi nekk bitim réew ñoo ñu raw fii de ndax la ma gis foofu gisuma ko Sénégal fii ndax murit ak tiijaan ñépp bokk bu koor gi jotee ñooy bokk nekk benn fa tabaarakallaahu di dogoo di waxtaane mag ñi fa tabaarakallaahu mu ne ma yow mi dugal lii sama nopp sax dama lay bégal tey wallahi alazim yëkkati cinq cent ne ma kii maa la ko may yëkkati beneen cinq cent mille ne ma kii nag sama ganu bopp la waaye li nga ma bégal ci njaboot gi loolu la ñuy def foofa wallahi si bég naa tey mag ñaa ngi noonu kon ñun lan mooy suñu problème tey moo tax Cheikh Al Hadj Abbas nee kii wax naan Touba ak Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul yéen ñi xam na ngeen leen wax nañu noppi mooy la gën seen dawlu jiitu na tey loo bañ bañ du fi jub waxal boqatiku yaa malxoonu yaa xëtt xol tuubaak tiwaawan ña seen jaamal ak canaba kadaka laa yéen wa njaasaan kum ci doon teralal xam ne yàlla def na la muy def xab la ci adal kon nag lan mooy suñu problème ba tey la ilaha illallah dafa am bu tuubaa ak bu tiwaawan astaghfirullah cheikh alhaaj abra demul tuubaa julli fa góor gu baax ga ca yàllaa ga sëñ Abdul Xaadar Mbàkke keroog moo ko jiite keroog maa góor gi donta tële na mënul sax su jootal boppam maa ko téye nekk ci wetu ndeyjooram sëriñ Baara Mbàkke xalif alxalif radiallahu anhu moo nekkoon ci wàllu càmmoñam ñuy yëkkati góor gi muy sujoot moo liqaamal sëñ Abdul Xaadar Mbàkke keroog waa yooyu du duñ ci jéem a jàngat ñun suñu bopp xam nga problème bi ñu am mooy ñiy wax duñu ñu murit du tiijaan xam nga nañ bàyyi xel ne am na ñoo xam ne ñi bëgg yàq tariqa yi ñoo leen di yebal di leen financer pour ñuy wax ngir tariqa yi te loolu du yàgg na Cheikh Al Hadj bi muy taalif xasida bi ma doon wax nii wolofal la bu gudd dama ko gàttal sax waaye olofal bu gudd la wax na ci lu ne ca jamono boobu la kon ñooñu nekkatuñ fi ñi daan defaan tarixa yi ñi daan defaan diine ji tey ñu ci bari dañu absenté diine ji kenn defaanatu ko tëdd sa climatiseur toog rek ñu dékk la rajo bu gàmmu jotee nga génn wax wax wax dara lañ waxul lu diine lañ waxante dëgg il faut qu'on se la vérité ki fi nekkoon Cheikh Al Hadj Abdou Aziz la fu diine tumranke mu jóg woote wax kenn yebuñu woon maa ngi maa ngi maa ngi xaabaabal sax parce que radiyallahu anhum mm-hmm. mm-hmm. bàyyi naa ko oustaz man dem dem jërëjëf <laughs> fa tabarakallahu kon mbokk yi suñu kilifa yi jërëjëf mu mel ni rek suñu kilifa yi ñu am ñu cher lañ ñu rëy lañ xam nga senegal buñ demee ba am fitu yëkkati kilifa yi di leen wax naka noonu te ay julit lañ ñii naan la tiijaan la ñii daan la murit la duñu dara xam nga mooy ñan ñi jóg ngir xeex tariqa yi ñu nekk ca bitim réew yor xaalis di leen financé ñu jóg ngir lool loolu rek la mais murit dëgg ñeme ñul naan alaaji Malick lii tiijaan bi noonu waaye loolu nag ñun ñoo ko war a défendre défendre bi nag du xeex ak xuloo ay jëf la ku ci xewle bu waa kër mam Cheikh Ahmad Bamba booyee na tiijaan yi ñëw ànd ñoom jàpp ci tiijaan yi tamit noonu waa kër maam Abdallah ñas waaw limaam ñépp rek ñu bokk nekk benn innamal muminuuna iqwa fa aslihu bayna axwaykum te li ñuy wax ñoo ko bokk laa ilaha illallah góor gi wax na ko zikrul ilahi lil qulubi quutu waaye in lam taxish bihi fa hiya tamuutu day delluwaat ci ala bi zikrillahi tatma inul qulub penku bi benn la laa ilaha illallah amul ñaar amul bu tuuba amul bu tiwaawal kon fa tabaarakallaahu ñu ngi sant soxna yi bu baax a baax xalifa bi nag dafa may faral di wax ne soo demee ji jotaay bul nuyu góor ñi demal nuyul jigéen ñi loolu laa waroon njëkkee kon soxna yi xalif général de Tidianes nee na mi ngi leen di nuyu ndax seen taxawaay bañ na ko buy recevoir Tiwaawoon kër ga góor ñëpp ci suuf la ñuy toog benn jigéen du toog ci di toog ci suuf ci kaw rek ndax fonk jigéen te mag ñi dañu amoon yërmande ci jigéen ñi dañu fonkoon jigéen ñi rawatina nag fi may tëje mooy seen maam Abdou ku fonkoon jigéen seen maam Abdou xoola pour wan leen ne dayoom ci roy yonent bi sallallahu alayhi ndax moo wax de inna xubba nabii xaala talaxmi wa idaami wa damma duuna riyaay waaye inna matxa xayru xilaajin xaali juuni bihi fa fihi shifaayi léppam sayduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam pour roy yonent bi man dafa ma daan jàngal loo xam ne doo ko gis ci téere benn bés dañ toog kër gi mu ne ma lam tooro su ma lekkatee ba pare samay bët mayatuma ko dee ma maral sama loxo ba benn peppu ceeb buñ ko tuuraale ma ne ko bàyyi loo ci nama mu ne xanaa xamoo ne sayduna muhammad yonent bi sama soppe ba da daan mar loxoom ba mu deretal pour bañ benn peppu ceeb bu ñu tuuraale wallahi alazim wallahi alazim moom ma ko daan wax moo tax man dama am problème man waaw man mii dama am problème bu rëy ci loolu parce que léeg-léeg ma nekk sama kër xale yi tuur mburu yi damay for a for for léeg-léeg tamit xam nga rek macha allah ngir roy yonente bi moom Cheikh Alhaji Abdou pour bégal njaboot dañ daan ànd wallahi alazim marché poisson ci jamonoom xalif général xam nga lu mu daan def bu demee mooy jëndal boppam ay jën kër gu nekk dina fexe ba dugal fa mbég ci njaboot gi njaboot gu jigéen gi su ñu demee marché poisson moo tax nitu yàlla lu mu lu mu gis nga marché poisson bu ñu jën daan jën ba boobu maa ngi nekk maa ngi gën nekk ndaw dont du ma mag nag âge yi barewul xëy na ànd mag ñi rek moo ma yóbbaale waaye bu ñu demaan ba mu dugg ba mu jënd yi muy jënd yépp ku nekk mu naan la ana géej góor gi de wallahi aladim jënd jënd coof jënd lu ne ba ci yaabo yi lépp kër gu nekk mu teg leel suñu paree mu dem Seras am na ku ñu wax Cheikh kii Sidi Dieng moo ko daan jaay yàpp pour bégal jaboot yàlla di def man tamit ma koy toppandoo ci loolu dem ba tabax gis nga jàkk jooju nekk ci marché poisson man mii maa ko fa tabax ci ay conférence ne leen da ngeen di am jàkk ñëw conférence fa dajale fa lu mat quinze millions taj ba ca Seras tamit noonu barke góor gi moo teg pose première pierre tey tojaat nañ ko ba defar ko Chérif Ibrahima Aydara bii tey ajjuma ji jëkk ci koor gi ñoo fay daje mu fay jouer rôle bu rëy moom tamit macha allah ñu ngi koy ñaanal muy suñu soppe di kenn ci ñun Chérif Ibrahima Aydara di ku baax waaye nag léppam Cheikh Al Hadj Abdou Aziz la donte sëtu yonent bi la waaye Chérif Ibrahima bëggul kenn ku du Cheikh Al Hadj moo tax góor gi pour mbokk yi na ngeen fonk jigéen ñi waay góor gi taalif na téere boo demee ci sullamul murid ma ngi ci ñaanal jigéen ñi moom Cheikh Al Hadj Abdou Aziz benn bés daf ma ne yow lu tax amoon soxna ba léegi xam naa da ngeen ragal dépense. ragal dépense rek tax takku leen jabar waaye kaay ma jox la loo xam ne boo koy def doo manqué dépense bu ma ne ko ah papa loolu dey su amee mu ne ma boo amee soxna takkal jabar te ko demal marché loolu la ma ko waxee wallahi alazim wallahi alazim mu ne ma takkal jabar te dee ko demal marché Cheikh Al Hadj Abbas moo sama soxna bu si la tudd ci njaboot gi la xamul marché ba ma sëyeeg moom ba léegi musul dem marché maay jënd jën maay jënd yàpp maay def lépp moom daal togg dina ko def rawatina nag gis ngeen bu ma tukkee oustaz ba dem bitim réew ay États-Unis yooyu ñoom Derma Blend ak ñoom rubbi ak ñoom euh, kii euh, nu mu tudd si Fashion Fair du ma bàyyi dara ak Victoria Secret yooyu yu baax yooyu du ma ci bàyyi dara macha allah kon ngeen baal ñu xaq kon nag góor ñi ku ci bëgg a soxna bëgg di am dépense dee leen demal marché wasalaamualeykum wa rahmatullah. <laughs>